jërëjëf jërëjëf jërëjëf aka am fit aka am fit moom bàyyiloo mi toog dawul dara ragalul dara moom bàyyiloo di vice président assemblée nationale bu Sénégal di président parlement bu CEDEAO bàyyiloo maa ngi lay nuyu taalibe Serigne Touba bu mag bi di la gërëm di la sant waaye di xa di nuyu xale yi xale yi ci wax bi nga xam ne wax nañu ko ndax fit boo ko amee ñu dëkkale la ko rek doo tàppet mi ngi noonu aka am fit du ragal waaye côté pànk moom dañ koy bàyyi ak jigéen ñi. waaw dëgg la loolu góor bu pànk moom duma ci dox. am naa fit guerrier laa liggéeykat laa. te aw ma lu ma ragal. waaye pànk ci jigéen nañ ko séntu. kon yéen ñii way boo leen di wayati da ngeen di xool li ngeen di way jëmale ko ci góor. am na way yoo xam ne góor a ko yelloo am yoo xam ne jigéen a ko yelloo. ay ca hmm. yoo laay déglu. kon jërëjëf mbokk yi yéen a ko déggandoo mi ngi noonu moom bàyyiloo mu dëgër fit bi tey ñu dalal ko fii si suñu émission pencum Sénégal. Baylo noo gisee euh, dialogue national bi depuis boobu ba léegi dégguñu la ci nga wax ci sànni woo ci benn. grain de mais affaire dialogue national loolu affaire affaire Macky Sall xam nga Macky Sall dafa woote na ni yàlla nañu def jàmm ci réew mi. sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général kullu murid woote jàmm. barki Demba Ndiaye sëriñ man Mansour si wax na ko. boo demee Medina Baye Léona Niassène. ëttu kër kilifa yëpp jàmm la ñuy ñaan. jàmm ñuy ñaan. kon ku ñu woo ci dialogue national boo ñëwee jàmm la. boo ñëwul yaa xam. jàmm la ma ca xam nag mooy su ma amoon parti tey du ma toog di xaar danaa dem waxtaanee. parce que li nga xam ne moo lay yóbbu ci élection loolu lañ fay waxtaanee bu élection amee ñu ne dañu sàcc yooyu ñuy wax noonu soo bañee ëllëg di wax dañu sàcc da ngay toog fu ñu koy waxtaanee da ngay toog fan koy waxee ñu waxataan ba juboo ëllëg lu am nga xam ne yàlla la trouver solution loolu waaw mi ngi noonu kooku may bàyyiloo ak a fit moom bàyyiloo miy toog bàyyiloo laaj nañ la question yi tontu nga ko depuis boobu ba léegi nag ñi ngi am question boo xamante ne ñëpp ñi ngi naan Cissé Lo moo koy tontu bu ko Cissé tontul kenn du ko tontu ñu invité la tey fii ci pencum Sénégal am yaakaar ne question bii bu ñu la ko posé nga ne ñu réponse baa ngi ne yow teg jug dem ñibbi loolu lañ yaakaar tey muy ci troisième mandat wu président Macky Sall bii. waaw loolu ci wax. a ah, xanaa nga leeralal ñu ci rek bu ba léegi ñu ngi ciy bëgg am lu leer. lan Macky day def troisième mandat waa déet waaw wala déet. xam nga Macky bi mu jëkkatee wax ji dafa wax lu leer. man aw ma lu may ragal. amul ragalul dara ndax man am naa lu may ragal. amul ragalul dara Pape Cissé. xam nga dafa wax ne parti bi nii lay demee. lii bugguma ñu wax ci nañu wax ci la loolu moo tax am na loo xam ne. mi ngi noonu da koy wax. Pape Cissé <laughs> nga ne loo wax. <laughs> mi ngi noonu ñun lii lan soxla koo invité nga laaj ko question bi mu ne la réponse baa ngi kenn du yow Cissé. waaw troisième mandat président Macky Sall dégg nga mi ngi noonu Cissé kenn du moom. laa leen la xam nga état xam nga xam nga kilifa bu la waxee ne lii nañuy dogal loolu nañuy dogal loolu nañuy dogal bu ne lii nañuy aaye loolu nañuy aaye xam nga Macky Sall xale bu ndaw la waaye tey nekk na président ñoo xam ne mën nañ ko bàyyi am du dëggam déet bu fekkoon dañu wax ne kii gën a mag ci réew mi mooy président kon xam naa ne kii nekk président ci àll bi lay dekk parce que mag yëpp nga ci àll bi waaye nga ne looy laaj. Cissé. waaw. ma ne troisième mandat. <laughs> ah yàlla na jot jàmm ni. Cissé ñëw ba sama plateau. xam nga waxtaan. dafay neex borom kër. man sama kër doo fa ñëw. ma ne nii laay doxalee. ku ñëw na nga summi say dàll balaa ngay dugg. nga ñëw sol say dàll bu la yat bi dalee yaa tooñ kon kenn ku nekk yaay xool la nga xam ne moom lañuy doxalee kër jaamur nga ànd ci am déet loo doon laaj nga ne si déggoo question bi déedéet ma ne troisième ah! yàlla ci yàlla ndox mu sedd lii ah, yow dama la xam ne fan nga dëkk ci àll bi àll ba ci àll yi fan nga ci dëkk. man de maa ngi dëkk fii dakaar Dakar Medina. Dakaru Ndiaye ah man de soxla naa Dakar sax xam naa ku la ma ci woo ku ma la ci woo nga jàppale ko. nga yaakaar ne loolu duñ ko waxtaanee te nga tontu ma ci troisième. loo doon laaj loolu. mandat bi troisième ma Macky Sall bi. waaw tontu ma ci. lan laa la ciy tontu. Macky da koy. Ah! <laughs> yàlla na jur jàmm li ma ne. ren nawet bi yàlla def na ci jàmm. xam nga yàlla mooy def loolu. addina boo ci nekkee bu la nit taxee ñëpp xam la xam nga CEDEAO tey bu ci Macky àndul woon duñ ma fal vice président assemblée tamit moo ci téye loxoom mais man président assemblée laa waroon doon kon nga ne lan nga doon laaj ana Cissé Lo mu dëgër fit nga ne troisième mandat wu président Macky Sall bi waaw ñëpp bàqantal la Cissé Lo dëgër fit bàyyi loo dëgër fit ñu am yaakaar <laughs> ah. moom yàlla na ci yàlla yi ndox mu sedd lii. ana sa yaay. mu nga kër ga. ana sa baay ña fa. xale yi na ngeen toogee baax na le yoo doo doomu Seex ñang ah waaw. kee du ñanga. na ngeen def. bàyyiloo. kooku du ma sey sëy na ngeen def. Pierre na ngeen def yéen a ngi ci liggéey bi. Cissé waaw. muy mel ne déggoo question bii de. loo waxati. ma bamtuwaat. waaw troisième mandat. <laughs> yàlla na jur jàmm ni